jaay sama gars yi campagne bi ubbi na dem leen jëli seen carte électeurs yi ngeen daas fanaanal voté jomaay jama jomaay coalition tu vois mooy bu baax bi mooy bu baax bi Sénégal li ñu ñëw pour teg ko ci raay yi tu jomaay moo jël te lii sax moo gën bu jomaay jëlee cinq ans isnvil Sonko nekk vice président bu Sonko ñëw jàll dix ans on aura quinze ans yoo xamante ji maanaam waa patriote yi Pastef dañuy ñëw jël Sénégal teg ko ci raay parce que Sénégal tegul ci raay yow mi dem hôpital ah ñu naan sa malade duñ ko amoo xaalis demal nga voté yow mi jàng bac plus sept rek dem ba sax découragé ne dootoo déposé si concours parce que nañ ba pare demal loolu tamit dafay jógee yow mi ñuy jaay doole nga joxe pour terrain jaay la bu baaxul nit lekk sa xaalis dem tëdd un mois parce am na branlo mu gënaat demal yow miy dund si insécurité ah, booy dox di tiit ñu lay agressé ak yooyu noonu demal ba tale jomaay Sénégal lañ ñëw pour teg ko ci raay yow mi jàpp ne tey jii boo tikkiwul du baax ah tekk fi c'est possible fa ngay xaaraan ni sa kër baay am na lu ko raw am nañ or zircon am lépp instant fil on a des mauvaises de mauvaise personne yu koy gérer am nañ dugg mais ku mën a taal amul te jogaay jomaay bu ñëwee dina mën a taal yow mi nekk ci région bi Isanville bàyyi fa euh, bay bi ndax amatoo ko jaay sa say say say say ji sa gerte ak yooyu noonu amatu ko jënd wala lu ko jëndee du baax Isanville nga nekk sa région ba amoo dara nga gis Dakar di biree ñu leen defal berte ñu defal lépp ñëwal décentralisation ngi ñëw ak jomaay Isanville yow mi ñëw liggéey ah di enseigner jàngal ay cent élèves par classe ñu lay fay lu bon jomaay mi ngi mission du am il faut mu def ay ONU trois ans si àll bi ñëwaat pour amee cinq millions toogal fii dañ jox salaire voté leen coalition jomaay kuy baadool da si war a jàpp ñi fi ne nii boo voté Amadou Ba continuité la xam ne mi ngi dem ay Europe naan su leen kiwee naa leen jox seen terrain yi ma diggoon wane kër goo xam ne ay milliards et milliards fonctionnaire kase te mook jomaay ñoo bokk grade Sénégal yeewu leen ñoo leen allié gor yaa ngi ñëw an Diouf mi ngi ñëw Boubacar Camara tamit soo bëggee bëgg nga ñëwal boo nekkee ab defeyaan nag man ni buggaan di teg xel ah bu la neexee nga dem